suuf moom képp la ñu waxtaanee tax ba Penda Mbow mënu cee ñàkk àddu njiitalu mouvement citoyen di xam ne lile. ah suuf bi ñuy caxat caxatee nag man dama yéex mu ci senegal tey waaw yow da gis kenn koo xam ne ñu ne hectare yooyu yëpp moo ko moom lu mu koy doyee. Ablaye Wade dafa am lum fi def da daan jël terrain bu mag. may ko nit. Macky bi mu ñëwee. dindiwul loolu. leneen li nga xamante ni ñoo ngi koy waxtaanee moo di gestion des deniers publics maanaam ni ñuy jëfandikoo gafagu nguur gi. bañ jógee ci jongante yu njiitalu réew mi ba léegi ay scandale ñoo ngi koy dégg fu nekk rawatina ba ñu fësalee njàngat yi nga xamante ni amoon nañ ko diggante 2019 ak 2024. ki fi nekkoon njiitalu caada ak cosaan gàlloo woon communication bu Sénégal di joxoñ baaraamu tuuma. c'est le clientélisme politique. clientélisme politique moo tax guerre mënut a jóg fii ci Sénégal ndax boo xoolee suñu société ni ñu ko tëggee dafay gën a yombalal lii di wàllu guerre donte sax nag révolution jot na. de révolution ngir soppi lu bari faaw rek ñu daal di ci sof doole gi nga xamante ni ñoo ngi koy jox njiit yi. yàgg naa koy wax société bi la ñu war a soppi soppi nekkinu société bi ak doxalinu société bi su ko defee. bu ñu amee doole ñun société bi citoyen lu ñu sant homme politique yi dinañ ko mën a def. mouvement citoyen bi leen nag daal di dooraat ay activités am liñ ci jublu moo di ñu xal ay yoon yu yees ngir soppi doxalin gi démocratie bi ak ñoom seen fii ci Sénégal la wante nag ngir door ko lépp a ngi tege. ci yarin gi. mais au les hommes politiques yi bu ñu jëlee nguur gi li ñuy xalaat rek mooy tabax ay dalluwaay def ay mbir yu am solo yu rëy waaye li ñuy fàtte te mu ëpp solo mooy sénégalais bi. c'est l'homme